indépendance ba léegi macha allah tabaarikàlla réew mii sànq ñu ngi doon wax ci général Ahmed Belali mhm. wax nañu sànq ci Mary Teuw Niane wax nañu ci euh, Bougane Gueye Dany ak ñeneen yoo xam ne ñu ngi ci réew mi param boo jëlee adduna euh, yëpp euh, mun nga gis ne par exemple surtout Afrique Sénégal lu mu def yomb yombute def mooy 2000 ak 2012 ñu changé ñu soppi président te deret tuuru bon peut-être que 2011 sax 2012 amoon na ay yenn yëngu-yëngu yi mais en gros dañu amoon ñaari euh, changement yu rëy te ñu euh, on le doit koo xam ne moom mooy président Abdoulaye Wade en tant que opposant en 2000 et en tant que président en 2012 fexe na bu am ñaari alternance au Sénégal donc bu ñu xoolee ci jëmmam moom rek euh, mu nekk koo xam ne roykaay la mun nañu wax ne kii nit ku ku ñu ràññee la ci àdduna ci politique bu ñu jëlee ku mel ni Amadou Thierno Gueye nekkoon directeur général euh, de la recherche scientifique et de l'innovation du Sénégal mhm. nekk genre euh, maanaam boroom xam-xam boo xam ne ci lépp luy dem ci jaww ji moonaam climatologie il fait partie aujourd'hui des meilleurs cest à boo jëlee àdduna yëpp nga jël nga ne damaa soxla dix fukk ñoo xam ne ñoom ñoo nekk les meilleurs climatologue ci àdduna bi yëpp forcement moom il faut nga tudd ko ñu gis ne loo kooku seen ton sénégalais doomu réew mi la fii la juddoo fii la màggee fii la jàngee mu nekk benn nit koo xam ne vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel bu ñu demee ñu gis ay mel ni di Ndaw si di Ndaw mu nekk benn ndaw boo xam ne c'est un jeune boo xam ne moo defar ordinateur thermique ordinateur boo xam ne même bu defee quatre cent degrés mun nga ko eh, jari jëfandiku donc ça veut dire qu'aujourd'hui tam adduna yëpp ñu ngi xoolee loolu te kooku doomu réew mii la mu nekk fierte ci réew mi boo jëlee ku mel ni Ibnu Temia Silla moom moom nga xam ne moom moo defaroon euh, li nga xam ne moom mooy Bluetooth mhm. Bluetooth yi nga xam ne dañ koy utiliser dans les années 90 moom moo nekkoon directeur de recherche chez Philips ñoom ñoo euh, defar Bluetooth bi mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore maanaam sur le plan mondial lépp loo xam ne xam la ci wàllam télécommunication téléphone ak internet mu nekk sénégalais doomu réew mi la tam bu ñu voilà moo moo moo nekk noonu bu ñu jëlee ci diine tam fii am nañu nitu diine yu baax depuis euh, El Hadj Malick Sy euh, Serigne Touba euh, Baye Niass ak ñoom maam Abdoul Aziz Sy baax vraiment xel du ko wàññi duñ ko mën a duñ a wàññi ñoom ñëpp am nañu ay nit yu baax ci diine fii ci réew mi. Mhm. te amoon nañu ko am nañu ko te bu soobee nañu continuer di am. ñu am tam ay xale yu mun a jàmbaar. ñu nekk ci gaal yi gaal filature yi gaal gaal kees yi gaal maare yi ñu nekk ci béykat yi ñu nekk ci samkat yi xale yi macha allah wala ñu nekk ñoo xam ne dañuy eh, eh, nekk bitim réew boo jëlee ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew sunu askan bi ñi bari ci ñoom jànguñu woon bu ñu doon dem bu ñu demee foofu nag ñu xarañ ba at bu nekk junni milliard ci sunu xaalis ñu ngi koy yónni ci réew mi. donc mu nekk loo xam ne fierté la malgré condition yi nga xam ne moom la ñu dundee foofu ñu continuer di def ay jéego yu extraordinaire mais loolu terewul ba léegi Asma. Mm. Ndeye Fatou madame sise mm-hmm. loolu terewul ba léegi Sénégal mënul fexe ba may liggéey doom ay ay ay ay ndaw yi. 2012 mm-hmm. ak léegi. Mm-hmm. su fekkoon dafa amoon ñaar yu doon taxawaaloo ci fukk instant bi nekk na ñeent dafa doublé loolu terewul ba léegi réew mi ndool mu ngi continuer di yokk. loolu tëreewul ba léegi réew mi téeméer boo jël ba léegi mënuñu fexe ba xaaj bi mun a dem école. Mhm. te ba léegi ay jigéen bu ñu wasi ne ñu ngi dee ba léegi. donc ñu nekk loo xam ne rañ Sénégal dañ ko ràññee dëkk yu gën a ndool ci àdduna. ba tey yokkute amaguñu ko amul. te boo xoolee loolu dina doon loo xam ne dafay dafay métti xol parce que mënoo comprendre ne ñu am lii yëpp nit yu baax yi yëpp. ñi nga xam ne borom xam-xam lañu la ay politiciens lañu ay militaires lañu ay policiers lañu ñu ngi leen ràññee boo demee Nations Unies ñu ngi leen ràññee mais dëkk bi mënul avancer. am na lu tax euh, loolu alors lu tax loolu moo am cest à lu tax réew mi munul avancer te waa réew mi ay doomu réew mi ñu ngi avancer. Hmm. mais réew mi mënut a avancer. alors première raison mooy euh, ba léegi euh, réew mi nekkul moomul boppam. Hmm. dëkk boo xam ne nag moomul boppam dëkk boobu mënul dem fenn. sunu xaalis ba léegi nasaraan yi moo ko yore ñun amuñu droit di di defar suñu xaalis bopp. amuñu droit di yore suñu koom-koom bopp ñoom ñooy def lépp euh, euh, sunu place boo demee ministère de l'intérieur bi may wax boo demee ministère des finances ay ministère de souveraineté boo demee sax président de la république yaa ngi foog foofu toujours ay nasaraan yoo xam ne ñu ngi foofu di contrôler di xool li ñu def di ñu wax li ñu war a def ak lu ñu warul def donc mënul avancer su fekkee dëkk amoo liberté amoo moom loo sa bopp. Mhm. mënoo dem fen ñaareel bi eh, bu ñu xoolee bu baax eh, état bu ñu wax état xam nga léeg-léeg da ngay dégg bari ñuy wax ne Sénégal état de droit la am na état suñu institution yi man homme d'état la. Mhm. mais boo xoolee ba boo xoolee di nga gis ne réew mi amul état parce que état bala mu am justice dafay dëgër justice dëgërul. cest à justice maanaam attekaay. Mhm. waaw tey boo amee mbokk ci police. boo amee mbokk ci gendarmerie boo amee xaalis boo amee boo nekkee kilifa ci réew mi boo demee ci gendarmerie ba police kenn du xool kenn du seet lan mooy dëgg dañu xool toujours yow ki nga doon li nga mën a joxe ak ki nga doon même su fekkee da ngaa nekkul ci dëgg dañ lay jàppale ci loolu donc mu nekk loo xam ne loolu. état de droit lu bëri. bëri na xamante ni dañ koy gis li may wax ci actualité bi xam naa Pa Assane na ci wax kilifa ak Simone laaj nañu. Euh, liberté provisoire ñu bañ leen ko te réew defuñu loo xam ne nit mun na wax ne li c' est quelque chose d' extraordinaire. te Bougazellier yi nii ci mbedd mi ci liberté provisoire muy loolu donc ça veut dire que état boobu. ñu fàttali ni mu nekkoon député boo xamante ni dañ ko jàpp ci wàllum faux billet. waaw maanaam yow da ngay représenter le peuple. Hmm. ba pare di nax le peuple. pourtant terewul yow am nga liberté provisoire. donc loolu du état c'est-à-dire hmm. damay wax bu baax pour que nit yi kilifa yi ñu dëggal ma. si on n'a pas d' amuñu état. parce que état bala nga ko am mu nekk état boo xam ne dafa am juste justice. Mhm. état boo xam ne dafay yemale ñëpp. tey boo jógee Dakar dakaar Njaay bi nga bugg a dem fépp fenn foo bëgg a dem ci Sénégal di gis ni dara amul ci Sénégal. Mhm. amul benn infrastructure. Mhm. amul ay tabax yu baax. kon connexion internet sax boo demee Gandiol mii à vingt neuf kilomètres de Saint-Louis mënoo am connexion internet. fii rek euh, xale bu góor bi jógee woon fële ñëw. Euh, waaye euh, dëkk ba waay. fii entrée am na am na dëkk bu ndaw boo xamante ne ñoom nee nañu bu ñuy il faut que ñu yëg ci garab yi. waaw pour ah, mën a am internet fii ci ah, fii à pas loin du Dakar. pas loin Dakar lu garaaw la day nekk état pour ñëpp. du nekk état pour ñi yore ñi nekk ci capital bi wala ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci nguur gi ñoom rek ñooy am ba ñoom ñooy mm. jël avion yi jënd avion cent milliards. dem voyage dul jeex. di fayee ko xaalis bu dul jeex di jël alal réew mi di bàyyi euh, askan bi ñu nekk ci ci ndóol ak ci ci ñàkk. Hmm. loolu du dëgg du cest à pour ñu bugg a am état ci réew mi. Hmm. il faut que loolu yëpp ñu bàyyi ko xel. ñetteel bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu euh, euh, ñi ñi ñi nekk ci bopp réew mi pas seulement ci politique mais ci xam-xam. ci koom-koom en général amuñu projet pour seen askan. toujours da ngay dégg sunu genre yi nga xam ne jàng nañu tuuti as tuuti nga leen dégg ñu wax ne askan bi dañu ko war a yee dañ ko war a conscientiser mel ni yow yaa nekk ci kaw askan bi. Hmm. maanaam dañuy day gis ñoo xam ne ñi nga xam ne jàng nañu am nañu as tuuti xam-xam ñoom ñoo war a nekk yaakaar réew mi wala ñu defar réew mi ñu nekk au service. Eh, askan bi ñoom dañuy bëgg a def askan bi nekk seen service di dem jël ay xalaat yoo xam ne du ñu suñu xalaat ay bëgg-bëgg yoo xam ne du suñu bëgg-bëgg ñëw indi ko fii boo ko boo ko defar ci réew mi donc élite yooyu moo xam eh, syndicat yi la moo xam parti politique yi la moo xam universitaire yi la dañu am responsabilité parce que kenn nangul eh, métit maanaam dugg ci coono ngir défendre réew mi ñàkkaloo seen bopp liberté ak euh, baneexu pour justement défendre ci réew mi ay ñoom Baba Babacar Boris Diop ak ñeneen ñoo xam ne ñoom Sembène Ousmane defoon nañu seen wa seen wàll mais instant bi dafa mel ni euh, ñi nga xam ne borom xam-xam lañu wala euh, ñi nga xam ne am na as tuuti dañoo fàtte askan bi di toppatoo seen i bopp. li koy li koy li koy firnde mooy boo xoolee réew mi tey amul benn bërëb liggéeykaay bu nit yi juboo pour liggéey. amul dara amul benn juboo ci réew mi da ngay gis par exemple ku benn Ousmane Sonko eh, tubaab yi bu ñu ko woowee ci benn rencontre il est dafa dafa yàkkamti dem mais Macky Sall bu ko woowee du dem c'est-à-dire que sunu biir munuñu jubo suñu biir. Hmm. ay parti politique exemple ci euh, élection yi da ngay gis ñoo xam ne ñoo bokk benn coalition mënuñu mayalante même benn parti politique munuñu am jàmm ci seen diggante donc ça veut dire que dëkk boo xam ne amul jàmm. diggante askan bi diggante doomu aadama yi ñi nga xam ne dañuy liggéey ñii di dem gauche ñii di dem droit boobu liggéey du boobu réew mënul avancé alors léegi lan mooy pexe nag buñ buñ koy xoolee lan mooy pexe pexe bi mooy première chose il faut que ñu faydal réew mi faydal réew mi mu ngi commencer ñu jël suñu mm, mm, indépendance ñu bu max eh, nasaraan bi mu génn ci suñu yëf yi. ñu yoree suñu problème bopp bu ñu bu méttee ñu nangu ko bu neexee ñu nangu ko mais ñu xam ne ñun ñoo koy defal suñu bopp mais du ñu fi indi kenn koo xam ne war na mun a dugg ci loolu donc faydal réew mi ñaareel bi mooy dañu war a tabax état de droit yamale justice dañ ko war a tabax ci réew mi sans justice du ñu am dara kenn warul nekk ci kaw justice kenn warul nekk fii di profiter ci justice ñetteel bi dañu war a fexe ba liggéey mu mhm. nekk euh, pexe boo xam ne moom mooy permettre doomu aadama mu tekki Mm-hmm. mais pas ay njublan pas ay leneen loo xam ne dina tax réew mi mënul avancer ensuite beneen affaire bi mooy fu may mooy ñu dañu war a dëgëral suñu démocratie dëgër mm-hmm. dëgëral démocratie mooy ñu am yërmande ci doomu aadama yi boo nekkee président de la république da nga war a am yërmande ci ñëpp ñi la contre ñi ànd ak yow ak ñi nga xam ne faale la mm-hmm. ñoom ñëpp da leen war a yemale nga xam ne képp koo xam ne am na droit ci réew mi mu am droit ñu am possibilité réew mi mu am alternance alternance boo xam ne pacifique la ñu bañ a def la république des médiocres suñu defee loolu rek comme ni ko anglais yi di wax nit yu eh, right man on the right place ñi nga xam ne ñoom ñoo aay ñu dugal leen ci fi ñu xam ne moom mooy liggéeykaay yi suñu defee loolu réew mi mun na mun c'est très important ci ñoom ba pare. xam nga lu tax. Mm-hmm. daaw ba ren ñoo ngi wax la même chose. Mm-hmm. am leen yërmande ci ñi ngeen di jiite. am leen yërmande xool leen nan nan la réew mi di suqalikoo te ba saa yu ñu xëyee gis ni ñoom ñoo ngi yokk di suqali seen mm. bopp mm-hmm. te fàtte askan wi donc moi je j'en viens euh, euh, euh, la profondeur du problème qui est de fait de société mm-hmm. tey boo duggee suñu société moo defar ñooñ noon jiite ñu tey mm-hmm. moo nekk di defar jamono ji ñu ñuy jiite ëllëg est-ce que jotul tamit ñu ñëpp ñu ndëpp national professeur daal di defaraat suñu toogaay kenn ku ci nekk euh, jëlaat xol yi raxas ko te tàppewaat ko judduwaat juddu gu bees ci juddu gu bees googu noonu lañ ci àndale ak compréhension wu le fait que nit yàlla bu ko sàkkee sax nit a ko war a jëriñoo. Mhm. dañ koy wax en général mais dañuy fàtte le le l'importance de la chose nit nitee garabam. Mhm. nit rek a mën a faj nit. nit rek mooy dee nit yëkkati la dem suul la. Mhm. waaw ma ne booy juddu nit a lay eh, accueillir booy dem nit a lay yóbbaale gunge la. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que jotul ñu bëggante ci suñu biir est-ce que le problème n'est pas le fait d'abord euh, d'aimer sa patrie d'aimer son peuple d'aimer sa population avant même justement d'être au devant de la scène parce que koo bëggul wala koo yëgul koo xamul doo ko mën a xeetali doo ko mën a dimbali professeur dëgg la li ngay wax ni am na solo surtout que ñun dëkku diine la ñu nekk ñii nekk euh, jullit ñii nekk katolik boo jëlee euh, euh, alquran wala nga jël bible lii yàlla di wax doomu aadama mooy buggalante leen entre vous yéen maanaam doomu aadama yi na ngeen buggalante s'aimer ça c'est la première chose boo xam ne dañ koy wax te toujours da ngay dégg maam Abdoul Aziz Sy baax dafa daan wax ne tàppe leen xool yi mm-hmm. Serigne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu ngi doon wax ne yàlla dafa dugg ci biir xol doomu aadama jël caabi sànni ko. Uh-huh. moo tax lépp loo xam ne ci xol la jóge lu baax rek lay doon mais lépp loo xam ne feneen lay jógee lu dul xool lu nekk lu baax te loolu dañ ko war a fa bàyyi ko si suñu xel parce que instant bi réew mi dafa jot ñu ñun ñëpp ñu xalaat loolu li ngay wax noonu am na solo ma toujours damay wax fii su sama développement personnel damay jiital toujours xol xol yërmande kaa uh-huh. nit bu amul yërmande ci doomu aadama bu amul yërmande ci ci ci askan bu amul yërmande ci lu muy def même mun na nekk boroom xam-xam mais munul am benn jëriñ donc il faut nga bugg def les choses en fonction de faire du bien et ça c'est important donc ñun am nañu sens juróom yoon la ñu julli ci ci journée bi mm-hmm. donc juróom yoon war nañu mun a wax ne bala ma julli bala ma ñëw julli li lan laa doon def est-ce que lu baax la est-ce que lu bon la su fekkee lu bon la bàyyi ko nga tuub ko sa sa sa borom nga bàyyi ko loolu mooy njëriñ julli julli du affaire soo julli rek da nga dem aljana déedéet mooy dafa lay may occasion. ngay raxas say bàkkaar boobu waxtaan ak sa bopp toujours li ma bëggoon def bala ma julli est-ce que lu baax la est-ce que lu bon la su fekkee lu bon la tuub naa ko yàlla bàyyi.